ñu tudde Moustapha yaa jëf jommal surafa nga mbëri sooga dem yam na xadiimal Moustapha yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri sooga dem mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Ahmadou Muxtaar mi fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi leen di nuyu ci turu njabootuk sëriñ Modou Moustapha gépp mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal mi ngi rafetlu it bu baax taxawaay bii nga xam ni sunu jawriñ ju mat ja jawriñ di sëriñ Mbacke Mohamed moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom sëriñ Modou Moustapha moo ko sosoon ci taxawaay boo xam ni sëriñ Xaadim Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha booba moo jóge bitim réew ñëw wuutu sëriñ Aliou Mbackeem sëñ Modou Moustapha sëñ mbakke joxe ndigal lii ni su bés bi ñëwee nañ taxawu sunu wajur wii lépp lu war ci bis bi nu def ko woo rakam ju da ja sëriñ Seex mbakke Madina ni ko lépp lu jëm ci ay ñam danaa ko def lépp lu jëm ci ndox ak boisson nanga ko def sëñ Seex nangul ko ko nam ko ko digale loole la sëñ Mbàkke mën na def defal ko sëriñ Moodu Musaa maamam ja su bis bi ñëwee lépp doy sëkk àgg fépp te loola xalaatama ak bëggam lu baax ak xam na it loolu ñoom la war bi ñu demee mu di ko taxawu ba yàlla dogal la mu dogal yal na ko yàlla dool yërmande ki teraanga mbatt yàgg ci gannaawam di ko liggéeyal ki nga xam ni tey mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mouhamed jël loolee nga xam ni wajuram waa ko sosoon ba mu ko jëlee fa mu ko jëlee xam nañu ko fi mu ko indi xam nañ ko yal na ko fi yàgg yóbbu ca kanam ak kanam te yàgg fi lool te wér te yéen itam yéen ñëpp ngeen di ko taxawu di ko indi moom day ba mu ko jëlee yokku na lool yaatu na lool te it gën naa mel noo xam ni su fekkoon ni ku ko sos del si woon na ba gis ko dana ko ni jërëjëf Mbacke Cheikh Moustapha Mohamed yàlla na ko fi yàlla yàggal yal na ko yàlla wéral yal na ko yàlla dooli xéewal lii mu def defal ko mboolem njabootu sëriñ Modou Moustapha gépp suñ nee màggal gi ëllëg lay ñëw mu indi nii ay añ yéen ko janoog moom suñu nee teel bisu màggal gi mu indi ko mu doy sëkk indi tey jii ay reer ëllëg mu indi ay reer ba ca gannaaw ëllëg sa mu indi ay añ loolee ni ko sëñ Moustapha yokkee ni mu ko yaatale yal na sunu mbir nun ñëpp ci barke sëñ Moustapha yokkee noonu yaatoo noonu sëñ neel mbooloo mi ko indi muy jëwriñ yii may bëgg a tudd indi nañu tey jii ci añu jëkk yi ñeen fukki booli booy nañ ko jàng juróom ñaar fukki kaamil alxuraan ak juróom booy nañ ko jàng ay xasida lu tolloo 451 astaghfirullah 63000 def nañ ko ci salaatu ala bi deux mille trois def nañ ko ci kon ñoom ñi nga xam ni ñoom la sëñ bi yebal ci ndigal la sëñ Baara ak Cheikh Jasaaka ñoo ñi sëñ Ahmadou nee na ñi ngi ànd ak ki nga xam ne mooy sëñ Cheikh Kan Ndongo Taïf ak sëriñ Sarr Jasaaka ak sëriñ Omar Sey ak soxna Bousso ak soxna Yëmu Ñaan ak soxna Faati Badiane Serigne Mbay Sekk Rijaal mii nag di seen jawrin moo leen jiite sëñ Ahmadou nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal xolom sedd na xelam dal na nee na mi ngi ñaan nag ci darajey Cheikh Moustapha Cheikh Mouhamadou Moustapha mii nga xam ne nawet day niru maam ja ku sëñ Mouhamadou Moustapha rawoon te nga bëgg a am ci moom loo def mbaa loo wax ñu ni na nga di daw seeti Cheikh Moustapha Mouhamed mii fi nekkal sëñ Mbàkke soxna loo loo ca bëgg boo ci wutee da ko am kon sëñ Ahmadou nee na mi ngi leen di seere loolu mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal xolom sedd na xelam dal na yàlla na ngeen ko fi yàgg indi yàgg na fekk ci barke sëñ Moudou Moustapha jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Wa waaye nag jataay bii nu nekk nu nekk fii ci bayti mbooloo mii ngeen seen mooy mbooloom Serigne Moustapha Mbakke moom sëriñ Mbakke soxna loo nu ñëw fii fekk fi Cheikh Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne moo tooge jataayub Serigne Mouhamadou Moustapha yal na ko yàgg a tooge lool ak mboolem buntu kër yi sëñ Modou Moustapha yëpp ay rakkam ay doomam ay sëtam yëpp ak mboolem seex si nga xamante ne bii ñoo nekk ci kër geek ci mboolem yoon wi noo ngi leen di siyaare ci bis bii kon bis nag sëñ Jaase sëriñ Mouhamed Mbacke sëñ Mbacke soxna loo moo joxe woon ndigal jamono yi nga xam ne sëriñ Xaadim Mbacke moom sëñ Modou Moussa moo moo fi toogal Cheikh Moussa sëriñ Mbacke Mouhamed moo joxoon ndigal dongoy tarbiya yi ni leen bis bii bu ñëwatee dee leen def ay bernde di ko indil ki fi toogal Cheikh Mouhamadou Moustapha loolo itam mooy wéy ba nëgëni ca sëriñ Xaadim ba nëgëni ba ca taayub Cheikh Mouhamadou Cheikh Ahmadou bii waaye itam loolu mooy bi nga xamante ni bii 2005 Serigne Mouhamed Mbacke dellu na ci ngërëmul boromam Serigne Moustapha moom sëñ Mbacke soxna loo dikk nag jël ko di ko dundal bu baax a baax di ci ñi dongo yi ñu di ko ànd ak seeni soxna ak seeni doom di ko taxawal kon bis bi ndigal li ñi nga xam ne ñoo koy jëfe mooy dongoy tërbiye yi waaw mboolem ñi yeewi ko ak ñi yeewi ko ak seeni soxna ak seeni doom ñoo àndi liggéey lii loolu ndigal la woon ci Serigne Mouhamed ba ci Serigne Moustapha mii. yow mii ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri soog a dem yam na xadiimal Moustapha yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal su rafaa daane nga mbëri soog a dem